tum sharrun makaanan wallaahu alam bi la ko nag lahum ñeel leen da koo wax ci xelam rek wala siis eeweew buur bi ne la wóodi kat ina abbaanaay dëgg ina ina ina loo ñeel nag kooki nga téye abban baay seexan bi mag baayam kat nag la kat kabiram bu mag seexan mag la sëriñ li ñuy tuddee sëriñ mooy mag mag la léegi nag ñun du ñu nangu ko téye ko te xalaasoo nañ ñu jar waa kër yax xooba rek jar nag ñu ngay déey xalaasoo nañ ñu ñu sellal nag mag yéen déew ñu ngay déey ñu waaw yéen nag xaala kabirum waaw yéen nag waaw waxtu nag ñu di ko wax raw biir awra haa wala ya osa alam taalamoo ndax dañu na xam ne ana baakum seen baay xat waaxa sa jàpp kana maw si xana wala re alaykum si yéen mine laay ci yàlla fi axaytum ci seen mbokk mi ah wan naa yéen wala re kon ngay wax wa min qablu jàppoon naa yéen wala re ak ci wa min qablu maa ak ci la jëkk wa min qablu ak ci la jëkk maa faratum ngeen sàgganu li ñal ma ak bi sama baay xanaa ayoon kuma wala atte boog laa fi buur yàlla yooyu tamit xeer kii itam mi ngi taxaw ne di dem ca bàyyam jëlee ko fi wala yàlla atte lu muy atte daw da nga nu booleeloon saraka sàcc na mun na ko maa sayt naa mununoo seede dal yow bàyyi xam nga ca dëkk ba lépp yi ba nga xam ni comme naa nekkoon nanu fiyaa bi tolloog dëkk ba bi ñuy sàcc wala wéeraay njëg ma nga xam ne ñoom lañu àndaloon ñu bàyyi ko kanaan lépp yi ah ci dëkk boobu te mooy nit yi waa kanaan yooyu naa ne que ni kon nga xam ne la saari xaw na wax nañ dëgg xaala yax xoola ni bal sawalat def na dafa ci noonu nam defoon kum ñeleen anfusukum seen bànneexi bakkan amra mbir amra mbir nag toujours fa sabru muñ jàmmiluñ mooy la rafet fa àlla yow ay nag du yàq muñ bu rafet ndax yonent bi loolu lañ koy tontu yonent bi faatoo doomam ji nga xam ni amoon na ñaari at Ibrahim sa doom dañ koo daggee ci xol fiñ ko daggee nag faw dara génne fa asee ndax laaw bur yàlla ad yaa seen yi budd kërët na biim ci ñoom lu tax mu ni biim mooy ko fa des wax arba ka ka wax ak Yusuf si boppam ak Benyamin muy ñett moo tax ma ñoom ñëpp jànneen doole innaw ni ko moom yàlla foo moo allim mooy aji xam di fi ñu ne moo xam seen mbir atte yi mooy aji atte dëgg wa tawala anhum wanaa li naw naqar yaa asafa wanaa su naw naqar yaa asafa tudd Yusuf yaa asafa ala Yusuf ala Yusufa ci Yusufa yow yàlla mujjit lu weex tàll ay naawe bëtam ya ci njàqare li mu saxoo te wute moom kasimun mu fees dell ak njàqare loo xam ne foofu nga wax ko doo ko muñ lu dul dang koo dee wala dee sax si ah bés yi waaw xataa yàbb say la daas nga ne anam nga ne mu nga police nga am bés yi kon xam naa ndax amoon na xam-xamu sekkare mi ne laay ci yàlla maa laa tax la moom lu mu yuusufa waa ak yi ak mbokkam ma li tax mu wax yuusufa ak mbokkam rek te waxu ñii la xamul fu ñu ne mi ne yuusufa waa ak yi ne nangam du am nangam mënuma koo am kenn du ko wax nangam masam naa laalati nanu de duru xiif duru lor waaw lan nag nanu la kon léegi marchandise mi ñu yor day dafa lamb marchandise mi ñaar boo nu toppee doo bu nu am dund mus jéetin mu lamb dañ ngeen faaw bu mataleel lanaa ñeenu kay la natt ba la tasadaq ta nga sarax al sarax nu rek ina laa ni fi buur yàlla ya gisi dana fay mutasaddiqina way saraxaña lu mu leen di fay ab yool xaalam yéen al alimtum ndax xam ngeen maa faaltum la ngeen defoon bi yuusufa dar bi ci dóor ak njaay ak yeneen ak waxi away benyaaminu xam ne ñoo bokk ndey ak baay raahila leen jur isa antum waxtu wa ngeen nekkee jaayiloon a di réere mbirum yuusufa yuusufa ta ah annaasu ahdaaw maa jahiloo nit waaw annaasu ahdaaw maa jaylo dañuy noonu lu ñu réere ah dañuy noonu li ñu réere dañuy noonu li ñu réere waaye walbati dañuy réere it li ñu noonu ah ndax dégg ngeen ah mu tafsir mu tadaato bi annaasu ahdaaw maa jaylo dañuy noonu li ñu réere waaye dañuy réere it li ñu noonu nit boo ko noonoo da nga koy ci bil ak fii nit boo ko noonoo da nga koy réere doo jéem a xam mooy kan ah doo xam mukk mooy kan ah doo ko réere da nga koy da nga koy noonu ah jërëjëf ñu koy noonu ni Abu Jahlin réeree woon yonent yàlla Muhammad ñu ngi ko réewoon moom nga xam ne ab jiriñ rek la bëti jiriñ rek la nga xoola woon du ñàkk solo waaw noonu baa ko waral loolu mooy saahid bi ay naka ñu ni ko ndax yow ay naka moo ndax yow ah ay naka moo ndax yow ay naka moo ndax yow la am te yow ñuy kat Yuusuf yow Yuusuf bi ah xaaral mu ne am naa man mii dëgg dëgg dëgg Yuusuf maay Yuusuf daal di téye sa loxo rakk ji waaw saa kii ak sama mbokk moo jëm yaa ngi léegi nag kat man nag xéewal na laay bi yàlla alay naa ci nun inna woo luy dëgg tey dëgg li xew ba des ba ba àdduna tukki man koo xam ne yow tàq ragal na yàlla wéyee si biir te mu muñ la ko yàlla teg faw rek mooy gañu su ne laa ñu fi biir yàlla laa yi lii di sànq mukk ajrul muslimin kon aqibatu lil muttaqin ñaari ngàmmaaya ngoog yoo xam ne jullit ñi la ko yàlla jox taqwa ak sabru taqwa ak sabru mu ne tàqi wéyee si biir lu mën a xew ak lu la mën a def boo ragalee yàlla muñ rek wala aqibatu lil muttaqin waaye ñaari ngànnaay yi bu boo joxee ba ñu jëlee ko ci yow perte la da ngay yomba dund da ngay yomba dund fa inna laa ni kidaaru laa yolli ajral muslimin xaaloo ñu ni taalaay duñ naa ci yàlla ni doo ñu daw yàlla wax laqad agaraka demal na leen laaw bi reela allay naa ci sunu kaw ca nguur gum la defal wa in nga ni ko wa inna ci ni si nun kun naa nekk nanu la xaati ina nun danoo jéemoon rek xaala wax yuusufa na leen laa tasriba garaawul garaawul amul yeddeel alaykum ci yéen laa tasriba garaawul garaawul la jabar ya waxoon Moussa laa dayra mooy laa tasriba mooy baal naa la rek alaykum ci yéen al yawma tey yaxfirullahu lakum yaxfirullahu lakum wa huwa arhamu rahimin yaxfir yàlla nag jéggal laaw bi yàlla lakkum ñal leen yow fa ñaanal leen woote moom arxamu raay mi leen moo di ndim bi moo di dim jaay yërëmi mboolem ñu yërëmi moo ci gën a mën a yërëmi mun leen nag léegi nag yëf yi jeex na xam ngeen ni man maa Yuusuf kay sama rak yéen itam yéen ay yéen yéen ay yéen yéen ay yéen si fekkoo dem leen di xam ne fii yóbbu leen sama mbub mi dem leen yóbbu sama mbub mi xaasaa nii Ibrahima la fi Ibrahima moo ko joxoon maamam dañ ko defee ca dund ga ndumba àjjana lañ ko jëlee mu mu digal Jibril mu jox mu jox ko ko mu ne ko yóbbu leen sama mbub mi wal xaw ngeen sànni ko allah ci addi ci sama kanamu baay xëpp leen ko ndum bu ko defee rek yaati mu dindi yaada yaati ndax jawaab la yaati di xoobam muy tàddam basiiram ni mu dellu nag di gis wa ato nii te bu ko defee na ngeen ma andil bi aalikum te seen ñoñ ak may na doole wala maa fasala te ba nga xam ne jëgg de alxiiru jëgg de teqale ko woon nañu woon nañu gannaaw kër Yuusuf rek dañu wonee gannaaw kër Yuusuf diggante fa ñu jóge ak fii mu nekk moom yaxoob siifóora bu kenn xam nu mu toll xaala mu daal ni abuhum xaala daal di wax abuhum seen bàyyi ñu nekk nañ laa judd am naa riyaa Yuusuf de waaw juróom ñetti farsaq farsaq bu nekk ñetti kilomètre trois fois huit vingt quatre ñaari junni ak ñeenti téeméer waaw ñaari junni ak ñeenti téeméer ci kilomètre ñaari junni ak ñeenti téeméer ci kilomètre xet xet xet xetu xet dana dox lu ëpp loolu xet dana dox lu ëpp loolu xet dana dox lu ëpp loolu kat dana dox lu ëpp loolu ah mu ne nag ñu laaj dëri ay Yuusuf loolu am ko fa mu doon doonte da ngeen may fen loolu doonte da ngeen may yedd it fanat fanat ci arab mooy firi fen loolu am ko fa mu doon fanat moo jëkkoon ci baat bi mooy firi fen xaaloo ñu ni ko taalaay bi naa si yàlla inna ko nekk yow léegi dalaale te yaa ngi ci sa réer bi alxadim ba jiitu woon rek ci mbirum Yuusufa waaye daal falamaan jaa ba nga xam ne ñëw na ci mbirum ndetteel albasir aju déglu bi mooy yow sax nee na maa yóbbu woon mbub ma mbub mbub ma ma ne woon mbub ma ñu taqaloon deret ja mbub ma ñu taqaloon deret ja maa ko yóbbu woon kon nag maa yóbbu mbubu njëg la ni ñu indi ko xëpp ko bàyyam alxaaw mu sànni ko allah ci allah wa ci ci kanamu baayam far taddam bi yow xoobee mu taddam basiran far taddam mu dellu basiran di gis xaala mu ne alamaa kum ndax waxuma woon lakum ñel leen nii ne ko man axlamu xam naa min allah ci yàlla maa laa taalamuuna lu ngeen xamul xaaloo ñu ne ko waaw yaa abanaa yow suñu baay istaxfir sàkkuru jéggalu rek la naa ñàng suñu banaa suñuy bakkaar inaa ni fi nun kat ku naa nekkoon nu mu xaati iina doon gërëm xaaral wax yaqub sawfa astaxfiru xarsat naa jéggulu lakkum ñu leen li tax na ñu ne sawfa astaxfiru da doon xaar waxtu lu jaaba waxtu njël waxtu lu jaaba la doon xaar bu doon ci ñun daal dañ naa ne ma yaqaar quatre heures et demie jëm cinq heures ñu ngi yaqaar juróom-ñeenti juróom-ñeenti waxtu neuf heures neuf heures gi nag mu ngi ci jublu jublu ci bi neuf heures jotee mu ngi ci jublu bu jant soo ba am juróom-ñeenti waxtu bu jant soo ba am juróom-ñeenti waxtu mooy waxtu li jaawa boobu la jant bi léegi du soo ci sept heures huit heures neuf heures dix heures onze heures midi une heure deux heures trois heures quatre heures bu quatre heures mooy waxtu li jaaba bi ci guddi mu ni daal nekk leen ba quatre heures ci guddi danaa leen ñaanal quatre heures ci guddi waaw am na ci bind kër sax ñu ko topp ba ne mooy waxtu yooyu nga xam ne bu ilimaan toogee waxtu yooyu nga xam ne mooy waxtu yi nga xam ne ci àjjuma loo ci ñaan mu nangu daa ñu di ko dàkk bu ilimaan toogee di ko dàkk bu yénére di ko dàkk waaye am na bind kër yi ñoom dañu bu jant fenkee ndéewal ñi dañuy juróom ñeenti waxtu waxtu yooyu la léewal ñu dañuy juróom-ñeenti waxtu waxtu woowu la diggante soom léewal ñu dañuy juróom-ñeenti waxtu waxtu woowu la mooy waxtu lu jàpp juróom-ñeenti waxtu juróom-ñeenti waxtu ndax juróom-ñeent juróom-ñeent juróom-ñeent juróom-ñeent yàlla da koy fonk juróom-ñeent yàlla da koy fonk juróom-ñeent yàlla da koy fonk juróom-ñeent yàlla da koy fonk daanaka booy seet ni rek moom moo yore lépp juróom-ñeent lu bari sekkare la moo tax weer yi gën ci weer yi juróom-ñeenteelu weer la ci weer yi boo commencé tam xarit bayir si ci mooy juróom-ñeenteelu weer weer yi ñu reñaane woon yonent yi bis biñ ko reñaane mooy sattum nit ak juróom-ñaar juróom-ñeent la ndax doo fa bee juróom-ñaar teg ñaar bu bu dee mucc bi juróom-ñeent la juróom-ñeent la juróom-ñeent la juróom-ñeent la juróom-ñeent la moo tax ci ilmul isaab am na lu doy waar ci juróom-ñeent loolu moo tax juróom-ñeent dafa doy waar ilmul isaab am na loo xam boo ko waxee boo indee woon ay lim boo indee woon ay sëf te te te xamaguñ ko nu mu toll boo tegoon ay teg ba muy juróom yaa ngi ko mën a xamee fu juróom-ñeent ci aarul isaab te doo ko wàccee naka juróom-ñeent juróom-ñeent juróom-ñeent juróom-ñeent fii mooy fii tax Cheikh Omar ñaanam yëpp lu ci ëpp juróom-ñeenti juróom-ñeenti yàlla ci borom laa bi génn yi yàlla ci fa laa bi génn yi juróom-ñeent rek juróom-ñeent rek fii naa ci juróom-ñeent moo tax ñu leen sawfa astaxfiru xal sat na maa jégglu lakkum ñeel leen maanaa ndax innahu ni que moom yàlla xafooru moom xafooru ko daal jaam la rayim waxtu woowu la doon xaar yàlla na ñu yàlla di dëppale moom vraiment daxaloo ba ñu duggee nag allah yusuf ca yusuf nee na leen woon ñëw leen ak seen ñañ ñu juróom-ñaar fukk ak ñaar juróom-ñaar fukk ak ñaar njaboot bi xooba booba noonu lañu toll ci diggante góor ñi ak jigéen ñi ñu ñëwoon njaboot yeeg yépp nag yusuf keroog bañ ko yëpp teeru seen misra laa xooba dañu lu xew ñu ne ko sa doom di naan yéesu ba dee moom la ñuy teeru asamaan sa mel na dafa sallameer ndax naaru góor yéeg naaru góor yaa ngi daj di ñaxal ñii yari gëléem ñii yar ay raaya àll bi fees dell ci raaya nga xam ne ñu ngi teeru waa kër Yuusuf waa kër Yaxoob ñu ngi teeru waa kër Yaxoob teeru bu rëy rëy la boo xam ne bi kenn mënu la ko wax waaye tey kat dañoo sakkan ba ba leen di Moussa di yóbbu saam mat nañu million ak juróom-benn téeméeri junni te juróom-ñaar fukk la ñu wan ak ñaar. million ak juróom-benn téeméeri junni mat nañ ko. ba ñu ñëwee nag vraiment daxaloo ba ñu tàbbee ñoom la firaw na téyewoon Moussa da di fee jot yóbbu leen saam. ba ñu tàbbee allah yusuf ñëw nañ nañ ci kër yusuf aawaa yusuf ñedd na ñedd na abawahi aawaa tàpp na abawahi ñu ni ndeyam la ah fekk na ñu am ñu ne yaay am na ñu ne fekk na yaay ji gaañu am na ñu ne papaam la ak tantaam yaayi gaañu fekk na ndeyam moom gaañu rahil am na ñu ni papaam ak yaayam la ilay abawahi abawahi ñaari waajuram ci moom daal leen di teg ci kaw lal ba waa xaaral mu daal nag niñ ci dëggalee tàbbi leen misra ci réew mi insa ndem neex na laa bu dee la amini na ngeen di mucc war a faa yëkkati na nag abaway jaari way juróom alal arsi ci kaw lalam ba ah moom lañ ko dund est-ce que est-ce que kii la xam nga naka lañ ko tuddee loolu la warafa abawayhi alal arsi ci kaw lalam ba waxaroo yaay jeeg bàyyi beeg mbokk yi ñoom ñëpp ñu bokk rot sëggada ñuy sëggoot loo ñeel Yuusuf ndax boobu moo xew loolu ca réew ma waxaala ma ne ah yaa abbatoo sama bàyyi nag asa ñi ngeen dajee sëggoot yéen ñaar ak sama mbokk yi taayilu ruyaaya mooy taayilu sama gént ga min xablu ca la dëkk lii di xew xat jaala def na ko rabbi sama borom mooy indi asara kaw kadon fo sam salal xamara ay ko saaji bi ñu àqan di dëgg waxataa sana rabata na moom buur yàlla bee ci man ilaya ci man waxataa sana bee ilaya isa axrajani isa axrajani waxte ñu ma génnee bu leen ko fàtte min al sëñ mi ca kasa ba waaye nag lam yàqul du wax min al jibbi ca kàmba ba ndax day teral doomu jaay su ko waxee dañuy rus mu ne Issa xara yéen yi mu ne sëñ mi mu ne sëñ mi Issa xara yéen yi mu ne sëñ mi moo tax ba tey mag ñi bind di ko ñaanale te ñu tëj kaso nga tàmbalee ca bopp Yuusuf di ñaan di ñaan di ñaan di ñaan ba di ko jàng ba fii ba ci Isaaxa ji nii mu ne sig nga ñaanal ko nag yàlla génne ko Isaaxa ji nii mu ne sig wajaate dikk na dikkum ci yéen minal ba day nag ca mang ga min bàyyi ko ca mang ga min baax di am te gannaaw ba nga xamee ne nasaxa yàlla nasaxal na nag seytaane fi nekkoon ci yéen bay ni sama diggante nekkoon sama diggante wa bay ni axirati ak sama mbokk yi ina rab yi ni ki sama borom latifum ku ñeewante la latifum ku dëgg la li maa yi saaw ñeel ki ko li ko neex ñeel ki ko neex innahu ni ki moom yàlla huwa moom al alim mooy aji xam ji ina rab yi latifum li maa yi saa xam nga ah latif juróom benn yëpp yàllaa ko jagoo du ci ànd ak xabiir du ci ànd ak xabiir kenn bokku ci am na juróom benn yu ànd ak xabiir ci juróom ñaar yi mu dox ci alquran bi juróom benn yee ànd ak xabiir laa tudd ko labsaar wala yudrik labsaar wala latif xabiir ak beneen ba ca Luqman ak beneen ba ca Fatir ak waskurna maa yëpp léegi bu wéetu yooyu yëpp xabiir la ñu àndal yoon kenn wu ci allahu latifun bi ibaadihi nag xeet yëpp ko bokk yarzuqu man yashaa'u qawiyul aziz inna rabbi latifun limaa yashaa' moom yàlla nee na nag sama gaa ñi laa ko beral loxo nit yàlla yi ñi wéetal yàlla ak wàllu yàlla yi ak fukkikat yi nag fukki nañ ci ne inna rabbi latifun limaa yashaa'u innahu aliimun hakiim ak fukkikat yi nag boo tukkee ci la ndax boo tukkee da nga yor maqaama bu foor ba dem ñu gisi ndax tukki dafa metti tukki dafa metti in rabbi latifun limaa yasaa kii nag moom la yàlla beral ñooñu innahu ni ki moom yàlla huwa moom alimu aji xam la akim koy aji atte dëgg ah nee na nag rabbi xataatee tamit day yaa rabbi yow sama borom Yuusuf ay wax xataatee tamit léegi jox nga ma meel mulk ci nguur waalam tamit xamal nga ma min tawili ahadis taawilu gént xamal nga ma ko xamal nga ma taawilu gént yàlla nag faatiri samawaati mooy ki duppi asamaan yi fekk fa dara mooy ki bind asamaan yi la lekk suuf anta yow yàlla wal ni yaa méngoo samay mbir fi dunya ci àdduna wala axira ci alaxira yàlla tawasa ni bis boo may faat yàlla na nga ma rey musliman may ku may ku wéetal yàlla ma dib julit yàlla yàlla na nga ma rey ma dib julit wala yàq ni yàlla na nga may yéegal nag di saal yi ne ca yooyu yéemu gannaaw loolu juróom ñaari fan rek la dund faat dund na téeméeri at ak nit loolu yaa ko waaw ah waaw dañ na war de xaar bi dafa kii xaar bi dafa kii ko bi xataate ko ni ñu mutu waxtaan bi waatoo ko nekk di ay sekara sekara fatiha ci ay xaw ñu dundaat noonu wala Yusuf Yusuf wala Yusuf Yusuf moo dund téeméer atam déedéet déedéet gannaaw ñuy bindaje nii loolu moom la dundaat gannaaw bi ñu ñaanee bi ñu ñaanee loolu taw ba mu muslim bi ñu ñaanee loolu juróom-ñaari fan rek la doon daal di paat saalika de saalika yan nañ ko ne yow loolu mooy mbirum Yuusuf mu ne naa la bàyyi waxee bi wax naa la ko ba mu jeex te kenn ke solo kumpe nuur yi waa wax yu nañ ko ilee ko ci yow ndax yow di ko doon laaj wa maa kunta déer yow la doyim nga nekkoon fa moom la doy xaw ci Yuusufa fekke yoo ko woon isaak ma ba ñu boolee am ren seen mbir ci seen pexe ñu dogu ca yow te ñun yem kuróona ñii fexe wa ma aksara naas déet la gën a bari ci waa Makka law arasta mbir moomu ni na ñu ñëw gëm law arasta doon te këroon nga ci seenu gëmit du ñu gëm wa ma tas allahum laaju leen laaj allay ci waare bi min ajrin ak yool in huwa déet moom alquran ilaa sukkurum nga def ak waar la rek ñu waare loola nga di ko waare lil alamina ñeel bindi fi yi mu wàccen ñu ñoom wa ka ayin bari na wa ka bari na min ayatin kiimaan bu ñuy romb te duñ ci waaru ci samaawaati bari na kiimaan ci asamaan wala li bari na kiimaan ci suuf yam woon ñuy romb ala ci kiimaan bi di ko gis yéen te ñoom muur dee na ñu ngi dëgg kiimaan bi am naa bàyyi ko fa duñ ko xalaat xalaat kiimaan ci sikkar yi la bokk ku génn bind rek yaa ko yegul xalaat kiimaan xalaat kiimaan ci sikkar yu foor yi la bokk doo yor kurus doo yor dara waaye yaa ngi sikkar sikkar su foor xalaat kiimaan yàlla yi wa maa yóomiru di gëm ak sëram la gën a bari ci ñoom du ñu gëm billaay ci yàlla illaa wa mbërëm ñoom musrikoona dañoo salte dañuy salteel diine mbërëm ñoom booy bokkaale lañ ci jaamu ay xërëm dañuy jaamu xërëm xërëm ñu jaamu jant jaamu weer ñu jaamu nag ñu jaamu lu nekk dem ne ba defar ngatu ngatu di ko jaamu def ko yàlla yàlla joo xam ne bi boo namee fa ndereere ko xam nga dañoo gàtt xel dafa aminu ndax dañuy wóolu antaat ñoom ba dikkalal leen xaasiyatun ak nuur min asaabi laa ndigalu yàlla aw saat yi wala mu dikkalal ni saatu saa baxtatin ci bett nag kenn du ko foog wom te ñoom laay soroonu duñu yëg xul waxal yow yonent aasi nii ma leen wax aasi yéetal yàlla sabbi lii mooy sama yoon de man ngay man ngay nunt addoo maa ngi woote nag maa ngi dem ca tool ya maa ngi woote addoo maa ngi woote ilalay jëm ci yàlla allah basiratin ci lay yu leer nañ am naa man nga nunt wam tàddeene ak sama topp nag maa sama topp wa subhanallah te du maa sell bu yàlla wa maa am hadeen man bu mu musrikin ma ngi bokk ca way bokk amañ wa maa arsalna musi mu yebal min xablika ci la la jëpp ci la rijaalan rek ay góor yoo xam yoo xam ne dañ leen a waxoon te leen ci ñoom musuma yebal ay malaayika mi ne alil xure te ñun ñu leen di ay nit dong laa mas di yebal waaye musuma yebal malaayika afalam yasiru lu leen tere dox ay axlu màkkata fil arli ci adduna bi falam siroon ñu xool kay ba kaana naka nekk axibatu la seen mujj ñi nga xam ne ñu xam leen jëkkoon nañ leen fu ñu mujj ana fan la ñu mujj wala daaru laaxiratu kër àllaaxira xayru moo gën yàlla ci ñi nga xam ne ci taqwa ragal nañu yàlla afalaa yaqiluuna nee na ñoom la leen ko reetalu gëmuñu xeluwuñu xalamuñu ataa yëkkate ba naagu rusulu yonante ne yonante ne naagu ne kenn du ko gëm wa sànnoo ñu wóolu ni annoom naka ñoom kat ko sigoo kat ñii kat wet dees na leen kenn duutu leen gëm booba nag yàlla nee na kon nag jaawum dikkal leen nasru naa sunu ndimbal mu ñëwal yonante yi kon jéem musal nag dañuy daal di musal bu noonoo ni mu zabbidan wa mu xafitan nga sadd wala nga weesal nee na bu ko defee mën na saay ku ñu neex wala yore bu dee sul dellu baasu naa sul mbugal anoo xëy mu bàyyi ko nit ña mu jëriñ ne ñu lànk ba ñu jaamu yàlla mu jëriñ ne ñuy bokkaale laqad kaana yàlla nee na wallaay nekk na moos hibratum xalaat hibratum xalam fi qasasin ci waxtaanu yonante loolu lal baat ñeel ña am xel mooy borom xel yi nga xam ne nag suñ borom da koo filtré segg ko waxuñu nag aqulu rek kii moo gën a soor aqulu aqulu xel lay firi waaye mi ngi ne na saree na ci oto ñu ngi ne lu ñu tuddee rab ci birim noonu la aqulu mel lal baat nag mooy borom xel mu soroot noonu la yàlla waxal loolu lal baat maa kaana nekkul alquran xadisan di waxtaan woo xam ne yustara des koy fortu walaakin la ne alquran tasdiqa bayna yaday day dëggal li ci kanamam ci téere muy tawreet ak leen jiiru alquran wa tafsila kulli seen alquran faram fàcce na faram fàcce na lépp lépp alquran leeral na lépp lépp maa farat naa fil kitaabi min shay bàyyiwunu dara amoon na benn jàngkat nit sin la bu tudd kooka mu ne ndaa farat naa fil kitaabi min shay sama tur gisuma ko ci alquran alxuraan ñëpp la ci seen tur nekk ndax yow fekkee ne sa tur mën na cee nekk ba nga nekk tartib bu fekkee ne yow yaa ngi tudd daam beel ga nekk fee lëlëf ga nekk fee miin ga nekk fee wala nga seet daama ah sa tur nekk ci bu fekkente ni yaa ngi tudd ibra ah lif gaa nga fële baa gaa nga fële raa gaa nga fële boo ko boole sa tur nekk mooy maa farax naa fi tukkaay ñu sëy bëgg a gis sa tur tartiiban nag man naa bañ a nekk ñu ne ko waaw yow na nga tudd mu ne man docteur kooka ñu ne ko jàngal wa tëra kooka xaay man tëra kooka xaay man wa tafsira kulli shay wa hudan wa dem njub wa rahmatan te yërmande li xawmin ñeel aw nit yoominuuna ñi nga xam ne gëm nañu yàlla nag nee na alif laam raa yàlla xam li mu namm ci mbiifam ak laamam ak raam waaye lu mën a xew daal allahu alam bi muraad yi yàlla xam li mu ci namm waaye nag di saalika di saalika daal firika ayatul kitaab mooy kiimaani téere bi de wala si mooy la nga xam ne wala si la nga xam ne in sira wàccee nañ ko ilayka ci yow mi rey dëgg sa borom loola mooy lan mooy alxaqu ak dëgg walakin la fi ne ak sara naa si la gën a bari ci nit ñi laa yoominuna gëmuñu allahu bir yàlla la si mooy ka nga xam ne rafa yëkkati na min samawaati asamaan ya bi xëyri xamadin ñu jàmm himaat yàlla yëkkati asamaan te amul kenn asamaan amul kenn yu koy téye taraw na waa kenn yoo xam ne da ngeen koy gis kenn yu ngeen di gis amul ci asamaan te yàlla yëkkati asamaan mu nekk ca kaw def ci ay biddiw yu kenn xamul xam ne biddiw yi ci asamaan moo gën a bari pepp suuf yi ci suuf si te lépp ci mu ngi ci asamaan si te boo jógee woon ci biddiw jëm ci biddiw war melax muy daw ñetti téeméeri ñetti téeméeri junni kilomètre ci benn seconde bu nekk nga war lay daw loolu nga jóge ci biddiw dem ci biddiw da nga am téeméeri junni at doo yegg ci biddiw ba nga jëm ci biddiw nga koy séen yàlla nee na pour wax leen sama kàttan suma topp nag istawa yàlla mat na nag ala arsi ci kaw araf yëpp lu nekk ca kaw yàlla nga ko mat ci kawam wa saxara tàggat na sam sa jënt ba muy daw pour nun di leer pour nun dina jox ak leer wal xamara yàlla tàggat weer wi kulul kum ci jënt ak weer yaa jiri ma ngay daw ca kula dem di dajeeg morom ma musaman ba di bu mu tudd muy daw li ajalin ak dem ci dig musaman ba di bu mu tudd yu dabbiru yàlla ngay settantal al amra mbir li ne mu tëral ko fa mu war a tudd yowe si lu mu faram fàcce ayaati laayaati kiimaan ya laala kum bëgg yéen rek waa Makka bi laala kum bëgg yaa di toog noonu ngeen wóolu bi la xayre di kum ñun da ngeen dekki ndax ku yedd dekki daanaka doo gis yiw ndax boo yeddee dekki yedd nga tey toog noonu wowate moom yàlla la fi mooy ka nga xam ne mata tallal na al arda suusa wa jaalam mu def rawaasiya doj ya fiyaa ci suuf yàlla tallal suuf mu def doj yi ci suuf aha suuf yëngatu mu def ci doj bañ mu yëngatu yàlla day jàngale sabat ne yàlla ban naa rek la suuf te du ko defi doj waaye day jàngale kenn ku nekk na nga sababu bi nag kenn ku nekk day bañ nga def tawakkul yaccaaral dafa bëgg nga def tawakkul wéeru ci yàlla nag tey sabab bañ a def tawakkul nag wéeru naa ci yàlla nga yàcc yaccaaral rawaase waan xaaral akum ndox wa min kulli samaratin ak ñëppam wa jaalam mu def min kulli samaratin ñëpp meññet meññet mu nekk ngi ci suuf fiaa ci suuf sow jëy ni muy góor ak jigéen lu nekk peer la lu nekk peer la laysa ka mislu seen yàlla rek dul peer yàlla moom du kenn sow jëy ni muy ñaar ismay ni muy ñaar yooyu la ko muy peer ismay ni yu nekk ñaar nee na yox si dana muure lay la guddi ba naara bëccëg ba fi nekk noo ngi ci bëccëg malaan mu weex ni muuraay bu weex bi la yàlla fab ñuur ko ci guddi mu weex tàll bu guddi ñëwee mu fab malaan mu ñuul ni ñuur ko ci malaan mu weex ni mu daal di ñuul kukk yaxsir layla naara ina laay te nekkee kiimaan te saalika doy na ci loolu laa loolu ndax ñoom li xaw ñu ñeel aw nit li tafakkaroona ñi xalam laay waxal wa fi loolu nekk na ci àdduna bi xittahum ay pakk ay pakk ay pàkk yu kenn xamul lu mu toll mutajaayiraatum mutalaasiqaatum pàkk yoo xam ni dafa taqoo wa janaatin nekk na ay tool ci àdduna àdduna bi min anaabin reseñ du jeex wa zara ak mbéy ak mbéy moo xam ne nii yàlla yàllaay béy wa naxinu ak sàndarmi silwaanin yu xeetoo yoo xam ne dañoo nekk xeet wa xayru silwaanin ak yu xeetoon te lépp kat tusqa ndox mi ñu ko nandale tusqa roosees na ko nandalees na ko dinayen ci ndox waaye di mu di ñenn benn woon na fa dul mu gënal ba ala leen ala baalim ci leen fël ukkili ci lekk ñuy xat ñuy lewat doom yàlla nee na maa ko def ci sama naaj ak sama taw ak sama melax lii moo ci indi cafoo ci mbéy mi naaj bi moo ci indi ñor taw bi moo tax muy màgg doganteeg naaj yi du ñor doganteeg dënn yi du sax doganteeg melax yi du sax dara yàlla nee na loolu lépp maa leen ko defal su ma saqax naa al arda saqan dégg nga nii ni nag kul ëppli mu gënal lenn ci lenn nag ci lekk ahi ini laay ku la koy kiimaan fi saalika lii saf saf sukkar lii yàqat lii saf xorom li xaw ñu ñeel aw nit yàqalee na ñi nga xam ne dañuy xel wa in taxjab ah yàgg na ndax jàng nañu isi def suñu isi rek lañ jàngagul isi rek lañ jàngagul ah kon ñu teg seen bopp ñu teg seen bopp waaw teg seen bopp waaw rek la jàng yéen taaj la ndem dama yéen ndem dama yéen yow yow ñun baabe bu doy na kéemaan de lu doy kéemaan lu mu xaw leen seen wax naan ay exactement ndax man nekk na mu traaban di suuf ndax bu ñu nekkee di suuf ay naa ndax ñun la bi xalxin daanu nekk di bind jaddi dan bu bees beneen bind bu bees ndax bu nekkee di suuf yàlla ne xul koonu hijaratan aw hadidan aw xalxan mi maa yakburu fi sudurikum dañ ko waxee ko yéen xeloo na daañu kalkalal seen bopp ca saari lisra nee na bu ko defee nag ilayka ñu ñu doy la fi ne mooy ñi nga xam ne kafaroo rek dinañu bëre dem ci seen borom ilayka ñu ñu doy al axlaaru jëmbiye koliye fi am neexi nangu seen doq ye ilayka ñu ñu doy asaabu naari ñuy waa sawara ñun ñoom xaal doon way sax lañu fi ak sawara way sanjiloo naka danañu sàkkoo gaawee loola di sayeeti andi mbugal qabla al asanati la jëkk yërmande wa qad xalat yoon na al masalaatu misaal ya min qablum ca la leen jëkk misaal ya jiitu woon na lool dina rabaka naka sa borom la sama maxfiratin borom njëggale mooy njëggal bu ànd ak sutura lim naa si ñeel nit ñi allah sulmihim ànd ak tooñ dañuy tooñ allah sulmihim ànd ak tooñ dañuy tooñ dina rabaka naka sa borom la sabidul iqaab bu tar mbugal la yaqul wax na la si ñi nga xam ne kafir ay weddikat lañu wedd nañu ba nekk ci yéefar law laa lu tere xalaa yelloon na um si la wàccee ayatun kiimaan ala ci yonent ba yéen ñu gëlee mu saalihu ga yéen a yetu Moussa wa min rabbi ci boromam ak loxo Moussa ba innama anta yàlla na ko dëgg-dëgg yow mun sëriñ aji waara nga rek loolu ci man la nekk nekkul ci yow wala nee na wala kulli xaw min ñen na ñëpp nit xeetu nit aadun ko leen di jubal yedd yooyu mu di leen woo ilaa rabbim jëm ci seen borom allah yëgal yàlla yàlla mu xam ne maa taamilu la nga xam ne ëmb na ko kullu insaa bépp jigéen bépp jigéen la mu ëmb yàlla xam na ko kullu rajulin itam bépp góor la mu ëmb yàlla xam na ko jigéen nag day ëmb benn doom wala ñaar ah ah dem jaabare ñett dana ëmb benn doom wala ñaari doom te gis ne jigéen ñi warul la jigéen ñi biir la ndax xol ba day rëy góor ëmb juróom fukki doom wala ñeent fukki doom toog ci ndigam juróom fukki doom na ci ndigam muy waaxu bu la rombee doo ko xamal dara wala nee na loolu sama xam-xam la allah yaalamu tankulu unsa wa ma taxulu ak la nga xam ni doom jëmmatul nga xam ne dafa wàññeeku arxaamu njurukaaye matul juddu wa ma tas wa ma taxilu ak lay yo la wàññeeku ci arxaam ye njurukaaye min muddatil amli biir ba jotagul biir ba jotagul ci muddatul amri wa ma tasdaadu ak la dolleeku ak biir ba jot na biir ba nit ñi xam jot na judduwul ñii am ci seen biir ndey ñetti at am na am na ñu ni imaamu Malik ca la bokk nee na wa kuy seen lépp lépp indewoo mbi miqdaarin nekk na di lu ñu réglé nekk na di lu ñu camal nekk na di lu ñu waxtul indewoo fa yàlla yàlla moomu nag alimu xay bi moo xam kumpe moo kumpe mooy li bëddul tege wa saadati ak li bëdd tege ak li ñuy gis boo xam yàlla alkabiru mooy pour rëy ka nga xam ni dafa rëy ba dara mënu koo ëmb dara mun ta dox sa digganteeg moom ndax léegi gëléem rek bu taxawoon fii wala ñay wala leneen lu mu réeri mën nañoo wut malaan mu réer réeri jaarale ko sa digganteeg moom duutoo ko gis yàlla nag kenn mun la jaarale sa digganteeg moom dara ba gisoo ko ndax xola xola koy gis moo tax nit wala bu tafee bëtam ñu ne ko loo gis mu ni kenn kenn kooku mooy yàlla kenn rek laa gis loo gis mu ni kenn yàlla ngoo al mutahal mooy ki kawe sawaam yemoo na mun kun ci yéen man ko wax ni affaire deey na alxawla wax jëf mu wax ko ca suuf yamam jaaraat kër biral bii ca wax jëf waman ak nga xam ne woo moom mustax bi ma ngay suturaat la muy wax ma ngi koy nëbb nit ñi bi léegi ci guddi la koy wax di ko nëbbi wa saaribun nee na koy wax ca guddee koy xaasi ca bëccëg laa yemale wa saaribun ak koy xaasi ca binaari ca bëccëg lépp laa yemale ndax la woo ñenn nit moo xibaatun ay malaayika yu koy garde te dañuy remplaçante moo tax inna quran al fajri kaana masuudun bu ñuy demee ñii dikk am na ñu ni juróom-ñeent lañ ñii ngi garde bët ñii garde giniñ ñii garde leneen ku nekk la nga garde ñii garde leneen ñii garde leneen ñii garde leneen kon kenn ku nekk la nga garde bu tëddee di nelaw dara du dugg sa nopp yàlla nee na maa ci def gaas kii garde lu dox lu raam ne lantaan yooyu xorondoom yi lu ñu wullu ci sa taxul nopp rek yooyu bëtiku min bayni yadayhi wa min xalfihi ñu nekk ci diggante kanamu nit di ko garde wa min xalfihi ak ci gannaawam yaa ko soo noonu ñu ngi koy wattu min amrillah ña ngi koy wattu nag ci ndigal ci musibam yàlla di ko wattu ci jinne di ko wattu ci lu ko bëgg a gaañ lu dul nag day mooy yàlla nag ah nee ñu bu dee mooy katub yàlla nag ba feebar feebar boobu ñuy tëddee tëddee sida li tax kenn mënu koy faj bu dee mooy yàlla ba def ko malayka yooyu doon garde ñëpp dañuy bàngaane seen tas waaw xëjit yi doon jël garab garab yi doon jël garab bàngaane amul benn garab bu ñu lay jox benn jariñ la garab te sa lépp day wuddeeku feebar bu muy dugg inna quraan al fajri kaana mashhuudan mooy ci saaru lisraay malaayika yi nga xam ne ñoo jël ci jullit suba ñaari laab la ñu yor ñu jël ci jullit tisbaar ñeenti laab la ñu yor ñu jël ci jullit takkusaan ñeenti laab la ñu yor jullit timis ñetti laab jullit gee ñeenti laab bu ko defee nag ñu doon jël ci ñi ñëwoon ca gee di jël ci jullit gee dañuy fanaan bu ñu fanaanee ñuy jël ci jullit suba monte ñëw fekk leen fa ñu ne inna quraan al fajr jullit suba kaana nekk na masoodan ñaari équipe yëpp a koy fekkee moo tax faatiri samawaati wala lu jaadil malaayikati rusulan qulu ajnaatin masna aw sulaasa wa rubaa yasiidu fil xalqi nag mooy naati lay yasiidu fil xalqi maa yasaaw qulu ajnaatin masna ñaari laaf wa sulaasa wala ñett wa rubaa wala ñeenti laaf ah yasiidu fil xalqi maa yasaaw nag mooy naati lay waaye jëmu ci njëriñ jabar nag di ko barakallahu ah nee na nag min bayni yadayhi wa min xalfihi yaafasuunahu min amrillah dina laa ni fi buur yàlla laa yoo xayiru du soppi maa di xaw min xéewal ga ci aw nit ataa yoo xayiru ma ba ca nit ñi soppi maa di am seen la leen yàlla santoon ñu bàyyi ko la leen yàlla santoon borom xam-xam yi wax leen ko ñu lànk ba ko wisaara da ndem na mën a laaw buur yàlla di xaw min ci nit soo am ñaaw teef lu ñaaw falaa marada kenn du mën a delloo ñaaw teef wa loo ñeel ko dégg nga nee na wamaa lahum déet ñeel leen min doonihi surul yàlla min wàllin bu ñu am moos ku leen di tereel ñaaw tëf la boobu moom yàlla la ci mooy ka nga xam ne ñun ca ma nga leen di woon ah baraka xawfan melax ga muy def mel mel mel mel mel xawfan musaafir baa ngay ragal tawte te tool ba marat na mu bëgg mu taw ca tool ba moo tax mu ne xawfan ragal naa tawte wa tamaam xemmeem na it mu taw ca tool ba nee na woon su sos nag saaba niir ya ah ci xaala ya fees dell ak ndoxum taw wayu sabbi mu ngay sabbaadu ci tur yàlla réebu malaayka mu naan rax bi bi am di ci sant yàlla ma nga naan subhanallahi wa bihamdihi wayu sabbi mu ngay sabba bu sabba rek ñëpp sabba mel ne patron bi joxe ndigal ca soldat sa bu sabba rek ñëpp sabbaandoo wal malaayikatu ñoom ñëpp ñu sabba min xiifati bu ko defee melax googu nag ku muy rey yow lay rey doo dégg dëlu gi melax gi bu nee melaxat sa kaw nag lakk la waaye nag doo dégg dënu gi dënu googu ñu naan mooy wadd déedéet dënu gi waddul melax gi mooy rey moo tax ci melax gi rey du dégg dënu gi rab bi ñuy fetal du dégg tuyu sox bi sox bi dana dee sox bi soog na piriri bu ko defee nag bu ko defee nag moom moomu nag mooy dem